وجهت كلي إلى سي الفضل والمنان عبدا خديما له بالفضل والسنان وجهت كلي إلى سي الفضل والمنان عبدا خديما له Sunna

wala mooy ci leen néegab géej lañu man nag li ma xam ci leen mooy lañ ma ca xamal rek man doon nga sille man doon nga sille day moo jur góor ñu rek man doon nga sille day moo jur Abdou Silla Abdou Silla bàyyi Assane Silla maanaam bàyyi Silla man doon nga silla moo jur moo moo jur ma silla màggat bàyyi seen mbàkk silla ak jigaan ay ak mariama silla jàmbaar ji nga xam ne moo ci ci leen tey ñu dellu santaat yàlla nag ndax ci leen day bu ñu ne du ko sant mu ne ma silla ñaxana ak biyaan ñaxana ak njiyem baay ñaxana ñoom ñu bokk ndey ak baay ñoo sanc ci leen ñooñu ñëw dina fi fekk nag ñuy ay jàmbaar yoo xam ne ñay xare lañ bokk ci néegub géej di góor yoo xam ne nangu nañoo liggéey te duñ yàq maam aldoon sill ki nga xam ne mooy waajuram wu góor bu jigéen wala xaw ma ko waaye wu xam naa ko mooy ma sill mber yi ma sill mber moomu yàlla da koo defaloon loo xam ne ñu ko defal bëriwul ndax daawut fanaan ci dëkk daawut yenn ci dëkk càll ba ca woon moo jur gu bëree bëree bëree bëree bëri boo ko tàmbalee ci mbaam ak nag ak xar ba ci ay gëléem ak i mo moom de la amone ba mu na ma tawass ñew tawass sonal nako sen sëñ mën dooba xaabaan bàyyi sëñ Moodu xaabaan ñew fa mu ne ko mbàkke da bëgg ñaanal ma mu ne ko da la ñaanal de waaye dogal ak yalla kenn mënu ko fat mu daal ne ko kon de ñi ma yër ci jur duma ko jox doom duma ko jox rak duma ko jox jarbaat jox naa la ko ngir addi sëñ Touba moom da jàmbaar jooju loolu la liggéey moo bokk moo moo bokk ak ma silla màggat ak abdu silla ca jàngeli ñoom dañu leen bokk ñi ci des kenn ku nekk nag ci leen ndax ngir mi dafa rëy te bànqaas yi bari am ngir ne bu fekkee dafa rëy te bànqaas yi bëri ku te wax da ngay wax la nga xam man du ma dugg ci lu ma xamul du wax loo xam te nu ma ko waaye xam naa ay góor lañu ay ay julli lañ ñu nangoo liggéey lañ te ñu yàlla doon dénkoon kàttan lañ te kenn musu leen a jooyloo ñoo jooyloo waaye kenn musu leen jooyloo ci léegi nag boo xamee fañ bokkante ak maaba yi fañ ànde dëkk ba ñu wax naan maa niiru naan maa niiru la ci leen ànd ak maaba ba jógee naan maa niiru dikk jolof dëkk bu ñu wax yang yang fa lañ dal toog fa lu yàgg yàgg yàgg daan nekk boo dikkee ci dëkk jàmbur ka taamu sa dëkk amul njëriñ dem sañ ci labar xoox bu la neexoon da ngeen tasaare tool ya nangu suuf sa yéen a ko moom yéen wàcc leen bañ fa jógee ne nañ jam ñu dikk njekki naan baddu bi ci lew leen bañ pend yuga paali saalami ci lam bu doon yële li bànnaa ku wax loo xamul day wallahi da nga jooy yëllëg parce que sëñ daam Abdourahmane man xam naa ne day ay góor lañ Bardo mooma de yaayam ñu ko tuddon Penda Mbay baam tudd bari Sill mu ànd ak maabo bo ci len bëri ñu gor ànd ak maabo rek ànd ak maabo rek yi Baara nelaw na ñu ànd ak yaayam Penda mooma Penda suba teel gi rek maanaam mu mu mu mu yor béy bi ak nga xamne ne mooy bi di fo di wut gata fa la ko jaan mat mu fuddu faatu ñu sa bandu rek kep keppere fami mamo ni fam sen wenede ko nampal ɗe nampal ɗe ko nampal ɓam nyarf ko tagdi ni ñuna ko war nga falo ɓurde muna noñi falo boor ñuna ko roñ la ko wax daal di ko jëndal wëldu woo xam ne ñay la toll na kan léegi nañ def rootam guddi kenn lañ ko ne la nga am bu guddenu ko indi ñi am ay nag indi ñi am gilem indi ñi am mbaam indi ñi am xar indi ñi am bay indi ñi am garar indi ñu jaay lepp jënd koy fatal ne nag nit bu fekkee dafa fa la buur ca kàddu wéeru gën balaa dem fen daa fekki bokkam booba na jaama nga njekk naan ba ñuy dem de nekkoon nañ fukki junniy góor yoo xam ne ku ne war na naaru góor ak juróom benn góor yoo xam ne ku nekk tànkam la yor dox waaye ma nga fetal bañ fekk waa waa dëkk bi daw ba ñu dikk itam jiital nañ téeméer yëkk ak juróom benn fukk nga nit ka fekk ne fekk na jaayam te xamoo ne doole yi toll da nga yóbbaal sa alal bañ dikkee fekk waa dëkk ba daw na jaayam yor ab tànk boo xam ne mënut a ngi toog ci lalam nga boo xam ne mi ngi jublu penku ko mu ne an sama kër na jaay laa koy laaj dañu ne kan la ñu ne ko mbay ndaw mbay mbay mbay ñu ne ko këram a nga nele seen gis-gis gu mag gi la mooy buntu këram mu waaxu ba agsi ɗon ɓe yayi no cepp ak boɗi no ñankaas ñankaas boɗi ɗi ciib ciibiri jorox joo xam ne jaando ko jàpp te li ko gukk daan na gebb lo na jaayam loxo na jaayam na ko yow yaay kan mu ne ko xam nga mbayam nday mbayam xam nga ko mu ne ko waaw waaw xamoon naa ko sama jigéen la waaye dégg naa daa faatu mu ne ko mooy sama yaay kon yow sama na jaay ñu gana la fa gana gana ñetti fan ba mu daanu ñu rey ci nag yi ba am fa ñetti fan mu ne ko daa bëgg a toog fii yow mu ne ko déedéet ndax man aw ma doole aw ma ngànnaay aw ma dara waaye ñii dafa indi am nañ doole am nañ ngànnaay am nañ pexe ànd la ñoom dellu la ko tàmbalee ca pom ba ca ndakaaru ba ca ba ca ndar góor gu fi nekk takk tubay tey boo rey na la waaw ba ca pom ba ca ba ca ndar ba ca ba ak ba ca ba ca kawlax buur su yëngu rek rey na la ñu ne ko léegi de benn buur rek moo ñu jaaxal Gàmbi la ne kooku de soo buur soose la waaye am na doole am na ngànnaay mu ne kooku nañ ma ko bu ñu danaa ko rey ku ñu wax may sa móori bi ci ñundum bu njëkkee ba xaaju am ñu daal dugg suufas Gàmbi di ca doxal di ca doxal doxal ba njël jot ñu génnaat delsi waa Gàmbi may sa móori ne moom de xam naa moom dana fi ñëwaay bu ñëw a rey ko ndax xamul xamul soosi te fekk jeexal na suuf sépp wër na ko bañ dajee dégg naa bisub àllarba la woon ba laata añ rey na ko jàpp mbooloo am dara def koy jaam di jaay bañ fa jógee ñu ne ah am na benn xare boo xam ne des na ñu ne booba fan na nekk ñu ne ma nga faas koto ak jàlla koto ak màndaax fu ci nekk buuroon fa de moo rey leen moom fa njëkk dem juróom benn junni góor la yóbbu téeméer juroom fukk del ci des na jëpp dañ leen rafetal foofu ñu dee ñu del del del siat ba ñu del juroom ñett junni góor la yóbbu ak jànjaar yi ak ñaf na ngoog dégg daw xaw ma ne xam ngeen loolu mu déet aw seen ak rafetal ak ndënd mu mag naa bi yor ko di ko dóor guddeeg bëccëg di ko tagg ñu fekk gaa ñu def tatte ju mag a mag a mag fab néegam yax def ca kaw def ko mu astari sukk rek dóor dóor ca bala kombax ga nii ba tàkk ca kaw gaañu daanuñ dimb mu ne ko daw baal mu dem waaye ko bañ jàppal am na ñoo xam ne sax kenn du leen tudd ndax ñu ci réew mi nekk ci dëkk bi te jege ñu lool waaye ca jaam ne lañ bokk am na jaam boo xam ne si la sant dib soose bañ ko indee ba ci kàddu ci leen ga bañ ko indee ba guddi dafa waax ba fa mbaaram ci la ma ne ko ma jël fa jël bu mag pa ja taxaw ca jël ba boo wane ku xam fu mu ne xamuñ ci kaw dafa dugg ci koo xam dafa dugg suuf jaal naa ba yee ma. ngi bangeli ca la bokkoon ñu jox ko maaba yi ñu ne kan maam gannaaw jàpp nañ fa jaam yu bëri kat maaba ñu sedd ñett jaam ñu sedd leen bàyyi maa ngi bangeli ak ak yaay Seydou Seydou Sare ak beneen jaam boo xam ne mu nga mujjoon kay meer fa la deewee ci leen ay góor la ñu loolu laa xam ci leen ku ci nekk nag ma tuddee sama war nga ko xam tudd naa seen maam ndax ma ndong sill moom jàmbaar la woon bi nga xam ne xeex nañ ba ma rey marché mori bi si yundum la sant kër ma ndongo ñu jekke jekke jekke ba ba ngaa bëgg xatal ci leen mu jógeaat fa dil siaat ci leen ba fi la ko yàlla moomee ay góor lañu ay julli lañu ay ñu baax lañu kenn ku nag xam na maamam ndax ñii masila ñaxanaa leen jur ñii biraan ñaxanaa leen jur ñii njéembaa ñaxanaa jur ñii sa maama leen jur waaw ñii masila mbere ko jur moo jur àndoom kooku ku ne xam na ko ñii abdu silla baayam ku ne xam na ko moo jur moo moo jur moo jur asan silla ñoom ak Baara la ñu day gor day jàmbaar te nun ko liggéey tuñ ko yàq lii laa ci xamoon maa ngi ñaan nag yàlla mi nga xam ne mooy mooy borom jàmm te kum defal ku am jàmm ja yàllaa la ko may yàlla ñoo yàlla defal jàmm te mais moom may ñaan nag maanaam ndaje mii yàlla na tey di tey di commencement bi yàlla nañ koy dem di ko dem di ko dem di ko ba suñu sotaat di ko dem yàlla ba ko kenn yàq ndaje mi de maa ngi ñaan ci yàlla diggante ci leen ak maabo ndaje mi ko yàq yàlla na gàttu fan man de dama ko yàq jërëjëf loolu laa na wax.